or bu Kédougou dinay dugal at bu ne lu ëpp ci ñaari téeméer ak juróom fukk milliards ci budget bu Sénégal lu toll ci fukk ak juróom or wala li ko ëpp la société bi di saba Sabodala Gold Operation di filiale Endeavour Mining Corporation di exploité fii ci Sabodala département ya waaye wurus bi dee njëriñulul benn yoon askanu Kédougou rawatina zone d'exploitation yi jafe-jafe askan wi teel a gën a yokk bu sukkandikoo ca waa gox ba ñoom nag seen doole lañuy yaakaar ngir gas am as tuut ci or man see jaay dundalee ko seeni njaboot ndax amatuñu suuf bu ñu bayee. or la ñuy liggéey waaw or bi tamit liggéey bi traditionnel la day nekk di gas suñu jotee ay fil ñu dindi ko debbu ko après def si ndox si teseer def si ndox teseer suñ si gisee tuuti ñun ñi continuer di gas di gas ba dem ci kanam ñi dindaat débbaat ko suñ ko débee ba pare ñu tesaat ko su baaxee ñu ñu indi ay saak commencé sol léegi su fekkee saak yenn saa di am benn gramme di yëg noonu di yëg yëg yëg ba 3 ba 4 ba 5 ba 20 ba 30 dangay dindi benn saak sax nga am si kilo ba par chance la mais liggéey bi bari na ay jafe-jafe suuf bi mun na mabbu sa kaw am na juddee banta yi bante yi la ñuy dagg dugal ko ci biir yii nii dañ koy def dagg si àll bi ñëw daggaat ko dugal ko ci biir. or bi si xeer bii la nekk xeer bu ngeen gis ni su boobu la nekk ay marteau lañ koy dindi. or bi moom mooy loolu tuut tuut li ma la wax nag grand bi day jar vingt trente quatre mille trente cinq mille waaw mun de mun nga jaay Sénégal fii fekk bureau mu ngi Kédougou mun nga jógee nga jaay ko bureau Kédougou mun nga jógee nga jaay ko Mali mais Mali moom. boobu trafic la suñ la si jàppee da ngay perte mais fii moom Kédougou mun nga ko jaay. soo léeg-léeg bi day daanoo sa kaw boo léeg-léeg bant mun na rooj fekk la ci biir waaw da lay gaañ sa sax mun na des. liggéey bi moom risque la mais li nga xamante ne moom nit fu ngay dund foofu ngay jafandu gis nga et fois gis nga comme ça tey lu am gars yi blessé so dama bi fu mu nekk nii amul dara su amoo moyen su amul jafe-jafe ñëw na te suñu dee tamit nguur gi day ñëw taxawal fii yëpp maam yu eggoon ni dañ leen arrêté ñu léegi liggéey du am booy bu ñu jow beneen nouvelle or yooyu ñu nga xam ne ne ñu ngi liggéey ñoom yëpp perte nañ du ñu amoon yëpp dañ dañ koy ñàkk guddi gi da am yi nga yi nga yeneen gars yi ñëw di liggéey gis nga machine yi lii yi lañ liggéey mooy problème la pour nga gagné ko sax parce que benn benn groupe mu ngi jar ay ay deux cent mille deux cent quarante mille comprendre bi mu ngi jar ay quatre vingt mille affaire jafe-jafe yooyu la ñu am fii waaw. boo gisee ñun ñuy ñëw sacrifice fii xam naa ni nguur bi moo liggéeyul bu ñu amoon liggéey tey duñu fi ñëw soo danañ fi ñëw duñ fi ñëw avec beaucoup de sociétés là il y a plus de centaines de zones ne sont pas employées loolu moo tax ñuy ñëw fii du wuti suñu kii. amuñu yoon amuñu emploi boo amee accident dee bu fi amee boo amee accident fii dañ lay tëj ci kaw loolu dañ lay tëj dañuy tëji borom damaam bi ak sécurité yi la ñuy tëj mooy borom borom damaam bi ak sécurité bi ñooñu la ñu soxla ak kuy dugal bant bi gannaaw ay milliards yi bàyyeeku ci seen suuf si askanu Kédougou ngi xamal ni infrastructure de base yi leen société d'exploitation yi tabaxal tuuti na loolu ci seeni bët te sax njëriñ bi leen seen or war amal des na ba tey te ab loraange kepp lañ fay jëlee. wax yoo xam ne moom vraiment ñoo nekk wéeti fu ñuy exploité ci ak ñooñu dañuy am ay léeg ay problème ay rëq dañuy am léeg-léeg ay problème parce que ñàkk déggoo te damay naan sax vraiment en certain ñàkk kóolute parce que société yi ñoom ñoo war a vraiment fexe ba population population yi wóolu leen waaye dem nañu ba def am na ñoo loo xam ne def nañ ko ba tax ba vraiment population ñooñu eh, seen diggante yi rataxul buñ ñëwee di def dara moom ñooñu duñ ci gis seen bopp moo tax léeg-léeg seen réaction réal eh, réaction violente la kenn ñaanu ko daal vraiment kenn musul encourager violence yi naan di régler problème waaye nit ñi war nañu comprendre ni peut-être population yi frustration la frustration mooy mooy indi violence yooyu léegi man daal man li may ñaax daal mooy population et eh, eh, société minière yi surtout au niveau de Mako PMC ñoom ñoo war a fexe ba vraiment seen diggante ak population mu relation de confiance. parce que léeg-léeg bu ñëwee li ñuy naan vraiment population su fekkente amoon na confiance bu ñëwee di naan vraiment drilling rek la ñuy def vraiment di ñu jéem a xayma lu nekk ci biir kii moom ndax loolu mën nañ ko exploiter industriellement xam naa loolu warul indi vraiment ay ay ay problème ay exploitation xëy na traditionnelle moom moo indi vraiment peut-être euh, quelque part richesse ci population yi. waaye pour eh, le plus souvent société yi li ñuy def je me dis que ni au niveau surtout de eh, Makko ñoom dañuy def vraiment sous le plus souvent boo demee laaj ñale moom salaire dérisoire la yow mi waxoon nañu sànq cherté de la vie au niveau de Kédougou ku ñuy fay vraiment cent mille loolu dafa mel ni vraiment c'est absolument rien au niveau de Kédougou ci lu ñu dund dundun bi ni mu méttee moom au niveau de Kédougou pratiquement ça ne sert à rien salaire boobu vraiment taxul ñuy wax vraiment jël nañu ay ay ay employés vraiment dundin bi moo moo jafe de sorte que léeg-léeg boo gisee ñoom sous la ñuy def société ñoo ñooy dem jël recruter tey kii fay leen et plus souvent ay cent salaires yi taxul ñu ñuy naan vraiment salaire la ay cent mille cent cinquante mille te bo ko boo koy boo koy eh, eh, jugé par rapport dundin bu métti métti au niveau de Kédougou da nga naan salaires vraiment c'est des salaires qui sont dérisoires xëy na lu ñuy naan kay mooy vraiment xëy na ñoo xam ne am nañu chance di def exploitation traditionnel bi ñoo ñooy am chance peut-être yàlla may leen chance ñu mën a am vraiment eh, ñu ñu for peut-être urus ñi mën a tabax ñu defee waaye bu dee moom société yi gisuma en tout cas man ñoo xam ne ñi ma wër ñi dëkk Kédougou ñoo xam ne dañ nee nañu vraiment sant nañu yàlla ci ci exploitation bi ci li ñuy liggéey foofu de sorte que vraiment man daan dafa mel ni jafe-jafe la ñuy indil cherté de la vie moo loolu la ñuy indi au niveau de Kédougou waa société civile bu Kédougou di dànkaafu entreprise yi di Endeavour Mining Corporation ak Sabodala Gold Operation ñu xoolaat seen taxawaay rawatina li jëm seen diggante ak askanu Kédougou. instant yi nii Endeavour moo fi nekk Endeavour moo fi nekk parce que EGO moo fi nekk kooku dem na bon Endeavour moo ñëw nii instant yi moom la ñuy liggéey nii nii nii vraiment ñun bon suñu communauté kii bii nii daal vraiment ñun nekkuñ ci dara quoi parce que même. même fu ñu war a liggéey sax amatuñu ko nii nii nii dafa mel nii dañu duñ dugal ñu benn tur boo xamante ni tëj ñu foofu daal mënuñu def dara yaa ngi dégg bon ñun bon du ñu dimbali ñu encore mooy affaire développement mooy lépp daal parce que ñun faale wuñu ñun daal ko voilà ñun daal su ñu amee koo xamante ni mun nañu dimbale même ñun suñu kër yi ñu ngi nii nii nii dañuy déplacé ñu indi ñu fii suñu néeg yi ñëpp ñu ngi mini bugg a daan expliqué nañ leen def lu nekk gars yi bañ ñu ne presque daal mais yow si sababu gis nga néeg bi nu mu mel. mën nañ nekk ñuy dimbali mais boo boobu day nekk ay commune mooy si mairie yi même bu yéeg man de mosuma ko yéeg waaw man lii mooy sama liggéey lii mooy sama liggéey te chaque jour man damay xëye douze kilomètres ñëw fii waaw emploi des zone loolu lañu ñu soxla waaw ak suñu yoon bi loolu la ñu soxla ak école yi formation yi loolu lañu ñu soxla parce que loolu noonu buñ ko amee duñ fi ñëw liggéey si liggéey métti bi parce que lii nii kenn bugg ko boo gisee ñu amuñu fu ñuy dem forcément da ngay ñëw fii. suñu yoon bii dara baaxul hôpital yi dara baaxul parfois da ngay dem hôpital nga am maladi garabu saa doo ko am garab si boppam saa doo ko am parfois da ngay def bindi ordonnance yóbbu ko ba Kédougou xam nga fii ordonnance ku sonn nga bugg a bindi ordonnance yi fii ba Kédougou vraiment xam nga loolu vraiment yombul daal quoi. bu dégg ñu ngi sonn poussière. poussière ka même gis nga suuf bii nii parfois bu ñuy eh, tonni si suuf bii nii poussière bi day wàcc si ñun booy mais ñun mënuñ ci dara parce que boo ko waxee amoo doole loo ci da ngay mun a wax rek mais mënoo ci dara sonnoon nañ gis nga ñun fu ñu nekkee nii ñun si sabab surtout dëkk falum bu nii fii nii nii fu ñuy bay sax amatuñu suñu jur yi ñu ngi nii di dee di dee baaraas yi amuñu fu ñuy dem parce que ñun ñun dañu nekk place boo xamante ni fii benn benn buntu la da ngay benn buntu ngay dugg moom ngay génn amatuñu eh, place daal. sa dëkk soo buggee mu développé il faut nguur gi te jàppale la développement mooy zaan mooy jeunesse bi ay comme ça ay projet ñu xam ne ne or bi nii ni ñuy liggéey or bi ni muy développé loolu suñu ko amee baax na ñu xam ne ne mun nañu dimbale ay machine détecteur machine yi ak traces yi ñu xam ne ñooy xëcc ndox ak marteau piqueur yi yooyu yëpp suñu ko amee baax na. xam nga étude d'impact eh, environnemental et social le plus souvent boo gisee ay ay ay ay centaine de pages centaine de pages il faut nga jàng pour nga xam li ci nekk le plus souvent day foofu la ñuy commencer di nax population yi parce que yooyu le plus souvent dañuy gis rek loo xam ne duñu leen wax vraiment en réalité lu li am impact bi vraiment buy am au niveau environnemental et au niveau social le plus souvent ñooñu dañ ciy adhéré mais au bout du di naan ah yéen a ko signé loo yéen a nangu woon mais en réalité ñooñu dañuy ay naxaate lañ loo xam si vraiment xamuñu li ci biir le plus souvent boo gisee yow bu ñu la joxee sax même boo jàngee boo amul spécialiste bu la bu la faram-fàccee lu nekk ci biir moom doo ko mën a comprendre souvent day jafe dañuy jël seen feu vert joxe wala kii fële waaw mangeen ngeen tàmmal exploitation bi mais au bout du compte bu boo commencé di naan ah lii kii ci ah yéen a ko signé de bokkoon na ci kii impact environnemental xanaa neewoon nañu village moom dañuy da ngeen war a tuxu vraiment te loolu vraiment peut-être au départ ñoo yëguñ ci vraiment ci enquête yi moo tax souvent c'est des étude environnementale lu ñu koy defee daal vraiment c'est je pense que ni nguur gi bu bëggee jàppale vraiment population yi souvent loolu bu naree am yooyu waroon nañu am benn cabinet bu leen di accompagner di leen accompagner bu mën a xam vraiment lu ñuy enquête vraiment en réalité lii lii lii lii lay firnde lii lii moo ci nekk. loolu bu amulee vraiment chaque fois boo amee beneen société c'est la même chose di ñu exploiter rek dem seen yoon di ñuy naan waa population yi vraiment bu ñu leen doon enquête yéen nangoon ñuy ñëw di kii fële léegi amu leen li ngeen di wax. bu fekkente ne nguur gi dafa bëgg a jàppale léegi côté boobu la ñu war a def te aussi lu ñu naan tamit eh, eh, fonds de péréquation fonds de péréquation bi yàgg nañ di ci jooytu eh, état bi nag nee na vraiment dañuy fekk commencé nañ 2019 di commencé di joxe yenn collectivité territoriale ba waaye ba léegi dafa bloqué loolu dañ ko war a vraiment débloqué ba pare bu fekkente ne moom am na rétroactivité ñu jàppale population parce que population dañuy sonn fekkee ne collectivité territoriale dem nañu ba may leen jox leen xaalis bu boobaa ñu man dinañ am vraiment fonds boo xam pour jàppale jigéen ñi li ñu naan vraiment autonomisation des femmes ñu mën leen jàppale bu boobaa ñooñu mën a def ak activité vraiment et rémunérative de yoo xam ne moom dañ ci gis seen bopp waaye tant que loolu amul moom bu defee vraiment de xam naa ne population seen rongoñ rek la ñu di jooy vraiment di jooytu waaye amul loo xam ne moom sentiruñu en tout cas boo leen laajee directement ñun lu ñuy wax moom vraiment du du ñun ñii en tant que forum civil waaye souvent dañuy côtoyer population yi boo leen laajee man dina ah ñun gisuñu seen suñu bopp ci exploitation bi en vérité kon population yi ñoom ñoo mën a wax vraiment lu ñu ressentir xam nga man mën naa fi toog di naan vraiment ah ñii lu ñuy wax vraiment lii ak lii déedéet ñoom balaa may wax vraiment dañuy dem vraiment jege population di leen laaj est-ce que vraiment lu ñuy def exploitation gis ngeen ci seen bopp ñoom ñoo ñuy naan di vraiment gis ñu suñu bopp ci exploitation bi vraiment dañuy nax kese loolu ñu loolu la ñuy wax moo tax vraiment pour ñun daal nguur gi bu leen bëggee jàppale daal mooy vraiment eh, fonds yu ñu war a vraiment jagleel collectivité territoriale ñu koy jéem a libéré fon de développement local tamit ñu koy jéem a jox eh, eh, collectivité territoriale te collectivité territoriale xam ni luñ ci luñ ciy def du càgg ne maire yi ñoo ko moom waaye pour askan wi la askan wi vraiment jigéen yi bokk nañ ci ñoo ci gën a sonn impact bi ñoom ñoo ko gën a yëg bu ko defee moom bu ñu demee par la surménage jàppale jigéen ñi fond boobu ñu dem ñu distribuer ko bu ko defee mën na am mu vraiment euh, amoon di bi ci impact bi vraiment ñu mun a gis seen bopp.